واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين mbokk yi leen déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bu ñu sant yàlla doolu sant yàlla bu baax waaye di santaat yàlla mi ñu may kàttan ma ñu fekkee bañ dellu si waat di def waxtaani fajar di wa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi daiman wa alhamdulillahi kasiran alhamdulillahi ala kulli haalin waaye di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa kiram ak ak képp yaa ngi topp sunnaam bi ilaa yawmil qiyaama di ñaan mi jaamal yàlla ñu yàlla defal jaama yokk ñu sutura yokk ñu kattan yokk ñu ñu feebar nekk ci kër yi nekk ci lopitaan bi waaye nekk di jaamat yàlla mi saafara yàlla ñu yàlla may aafiya yàlla ñu ñu yàlla may aafiya yàlla def seen baabi bu nekk rawdatu min riyaadil janna njaboot bi yàlla sàmm leen aar leen laaxale fu yaay ak dugle si yoonu siraatikal mustaqim muccal leen fitna musiba ak bala seytaan jigéen yàlla sàmm leen suñu mbokki Palestine yàlla aar leen yàlla sàmm leen may leen dem si kaw yahud yàlla yàlla nasaxal yahud ak a may jullit yi ndam si kaw yaa rab amin yaa rabbal alamin mbokki jullit yi ñëwaat fi si daaray Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jàngalekat ma moo ko jullit yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam loo xam ne mu ngi xew suñ jamono ji yu bari waxoon na eh, nettali woon nañu wala wax nañu fi nga xam ne ñu ñëpp foofu lañ war a sukkandiku muy si nga xam ne si lañ war a deelu waaye ndig jamono yonent bi salaam yàlla na ko day xamal yu bëree bari bari boo xam ne sax nay ñëw muy wax ak eh, askanam bi waaye di wax ak ne jamono jooyu suñ ko fekkee bon si liñ war a jàpp rek mooy sunnaam bi waaw parce que nañ dema dem nga xam ne dañoo bugg a tumarankel bi su waxee rek ñu ne la amutoon wala sunna amut waaw sunna amut subhanallah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nga xam ne lu mu wax rek yàlla ko ko wax moo ñu xamal ne jamono dina demi bi nga xam ne ute wi dina bari suñ biir ku nekk di oote mën a mën a mën a mën la waaye jox nañu delluwaay jox nañu foo xam ne ñu ñëpp fa lañ war a téye suñ buggee mucca waaye suñ buggee bokk si ummaam bi yawmal qiyaama ñi nga xam ne dina war a ay ummati ummati suma xeet suma xeet te mbokk jullit yi dem ba àllaaxira yonent bi salaam di oo ummaam bi di oo xeetam bi yow bokkuloo ci loolu kasaara bu réeréer yàlla na ci yàlla muccal wata si xadis bi nga xam ne imaam muslim moo ko solo yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne attamassuku bi sunnati inda ixtilaafi ummati kal qaabidu alal mune sai bo umam be hetam be ame ay ute ute ndi kam mana linnay am aw ki ote fale kale ote fale kale ote fale mune ki yeg nga xamene mo japp sum suma sunna be ki nga xamene mo topa siman liman nekon ak sahaba yi ki nga xam ne mu ngi téye si man li ma doon oote man sallallahu alayhi wa sallam te képp koo xam ne si suma askan nga bokk rek si loolu nga war a téye si loolu nga war a toppa képp koo xam ne si xeetam bi ummaam bi nga bokk si loolu nga war a téye mooy lan mu ne tamassuk bi sunnati mu ne ñuy jàpp mu ne ñi nga xam ne nag ñooy jàpp si sunnaam boobu indi ixtilaaf ummati waaw mu ne si demee bi nga xam ne ummaam bi am nañ ay uti uti seen biir ñu jàpp sunna ba ña nekk si sunna bi nga xam ne moom lañu indi moom sallallahu alayhi wa mu ngi indi misaal ba mu ngi indi exemple ba mu ne misaal ba mu ngi mel ni ña téye sunna ñu ngi téye xale safara parce que suñ yàlla ne yonent bi rek am na ñu xam ne ñu jóg commencé leen attaque di leen attaque waaw ne yàlla bi rek am na ñoo xam ne duñ ko bugg a dégg mukk mukk mukk mukk subhanallah te li si gën a doy waar mooy ne su waxee ñu ne yaa ngi wax si ay mag yi wala ñu te si sunna lañ nekkoon soo buggee wax ne kila aussi sunna nag nga ne déedéet kii mu ngi dingat wala mu ngi li mag yi indi bon yaa ngi bugg a mag yi ñoom nekku ñoom si sunna te ñooñu loolu lañ jàngale waaye doomi aadama ñoo dema dem bi nga xam ne toppa suñ bànneexi bakken bàyyi njàngale yonent bi aleyhi salaatu wa salaam nga xam ne mu si téye rek duñ mos a réer mukk loo tax mu ne taraktu fiikum amrayni maa in tamassaktum lan tadillu min baadi bàyyi naa leen ñaari mbir boo leen si jàppee rek doo leen réer suma gannaaw mukk yàlla subhaanahu wa taala wax si alquraan ne fa in tanazaatum fi cheyin farudduhu ila allahi wa rasulih xataa yàlla mi ñu sax kasa xam na ne léegi utee nay am suñ biir waaye yàlla indi nañ indi nañu solution bi de yàlla indi nañu fi nga xam ne ñu ñëpp fa lañ war a dellu muy alquraanam bi ak sunna sallallahu alayhi wa sallam bu ndikkatee ñun suñ réeree wala suñ bàyyi yoon bi ñun la ne ñun ñoo ko bàyyiloo toppa suñ baana baana ay bakken waaye yàlla subhaanahu wa taala mi nga xam ne sax mooy ñu sàkkate su ko neexoon ñëpp jub ñëpp nekk si alquraan sunna moom yàlla subhaanahu wa taala bu ko neexoon kenn du wee alquraan sunna ñëpp si la ñoo nekk waaye daf ñu bàyyi ku nekk ak nga am sa boppa ku nekk nga xelaat mu indi la leeral la indi la alquran indi yu neb sa sala mu indi ñu sunna mu ne la mu ngi nii nag yow sa xel bu ñëw ak sa xel bu ñor seetal ban mooy li nga xam ne moo gën nga toppasi mooy alquran ak sunna wata yàlla ne saay buñ amee uti rek acee la ñu delluwaat si li nga xam ne mooy alquran ak sunna bon ñu ñëpp benn lañ yàlla yónnee ñu ma naka marji marji mooy fu ñoo dellu ñun ñëpp yàlla wax nañu ko si alquran bon kuy wane sunna amul subhanallah yaa ngi nasa boppa parce que si ba ñu yàlla wax ne nañ dellu si alquran ak lan ak rasuul rasul lan la ñu indi mooy sunna sunna lañu indi indil bon sunna mooy tariq mooy yoon bi nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam indi isi des yëpp gannaawam lañ ñëw waaw ñoo oote yëpp ay chia am na ku ñu ne ak sunna sa amutoon waaw loolu amut subhanallah chia kañ moo ñëw gannaaw sunna waaye sunna moom macha allah moom la yonent bi alayhi salaatu indi te moom la ñu bàyyee bon yàlla ñu yàlla teg si yoonu siraatal mustaqim yàlla subhanahu wa taala boole si nga xam ne nag si jamono demee ba wécceeku tamit ba léegi ñun ñu téye si li nga xam ne mooy sunnaam bi ndik loolu mooy ñi jàpp si ummaam bi muy xeetam bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu yàlla boole si ñooñu yàlla bu ñu dara wécci yàlla muy dara murtadloo yàlla subhanahu wa taala defal ñu jaam defal ko mboolem julit wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi daawana amin hmm.